Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est ce que nous la semaine passée. Nous sommes entrepreneurs agréés par la Sénélec. Nous sommes CNPAS. Nous sommes là. Du collectif national des entrepreneurs agréés par la Sénélec. Si les êtes agréés par la Sénélec, c'est que Sénélec a fait avec nous, Lydia Sabocham, nous sommes les Sénélec. Nous sommes CNPAS, nous avons créé d'abord. c'est pour la bonne marche du travail dajale képp koo xam ne kii ngay entrepreneur agréé par la Senelec ñu booloo doon benn jàppante pour la bonne marche du travail en même temps ñu mëbët moom mooy CNPAS entrepreneur yi ci nekk prestataire yi ci nekk di liggéeyal Senelec seen liggéey doxalin ak Senelec mën a di de liggéey bi mën a tegu ci yoon mooy euh, premier kii bi deuxième bi moom mooy ñun waa CNPAS entrepreneur yi nga xamné ñom la seen lekk agréé ñu nekk ay prestataire ñun ak suñuy kat ñu mën leen tek ci yoon mën leen jappalé CNPS nak liko taxa tax moy ñetti critère ci la bok taxawal li nga xamné mom moy mooy dëgëral CNPS CNPAS entrepreneur agréé par la Senelec moy prestataire u Senelec yi ak Senelec deuxièmement ñun dañuy former ay xalé di leen encadrer jëlee leen ci zéro indi leen def leen ay installateur ñu doon ay électricien professionnel tey jii Senelec bu soxlaa ay personnel ci ñun lay jukki ñu yëkkati jox leen ndax ñooñu dañuy mën liggéey bi muy benn deuxièmement dafa am ñetti façon entrepreneur yi fi nekk ñoo xam ne ñii dañuy def li nga xam ne mooy commercial di def relève présentation ak coupé moom mooy les crêpes ñu jël ci ay xale formé leen ci loolu ñom dañuy def relève di def présentation di def coupure amna yenen entrepreneur yo dañuy def sécurisation de compteur tirer branchement ak compteur comme euh, def ak patch, bu koy def ba dañ ci jël ay former ci am ci entrepreneur dañuy qualité des services exploitation implantation tirage xam nga li ma la di liggéey li nga xam ne moom mooy li ngeen di gis ci dëkk bi ñooñu it am na xale yu ci nekk di liggéey dëgg-dëgg nekk ci am ci seen lépp boo déggee prestataire mooy entreprise bi nga xam ne dafa am agrément ñun dañoo nous sommes agréés par la Sénélec am numéro agrément am numéro partenaire di liggéey directement ak Senelec ñun ñoo leen di employé ñoom bu ñu dee prestataire prestataire lañu entre ñun ak ñoom mais amul benn lien bu leen relais euh, bu leen boole ak Senelec ñun la ñuy liggéeyal te maa ngi leen di wax ne la ñoom combat bi ñuy mëne pourtant ñun ci créneau boobu la ñu nekk dafa bokk bokk ci suñu plateforme de lutte contre euh, revendication yi ñu am moom mooy former xale yi encadrer leen ñu nekk de vrai installateur bu Senelec soxla suba ñu yëkëti ci ñoom yóbbu leen am na ci ay boy yoo xam ne ñu ngi Senelec ñu embauché leen nekk ñeneen a ngi ci yeneen société ñu embauché leen am na ci ñoo xam ne ñii dañ leen a jëlee ci zéro yóbbu leen ci cent te bu soobee yàlla ñoom bu ñu indee seen combat si ñun dañ leen koy porteel parce que nous sommes là pour yokk emploi di répondre ci li directeur Senelec wax di répondre ci le président de la république wax loolu moo tax ñu créé CNPAS di syndicat national des entrepreneurs prestataires agréés par la Sénélec donc je ngi di ATE le des travailleurs de l'électricité ils ont raison c'est des travailleurs de l'électricité ils travaillent pour qui ils travaillent pour les prestataires agréés donc en ce moment

ñun jàmm la ñu kii parce que ñun ñu ngi former ay xale di contribuer pour li nga xam ne mooy l'emploi et la formation nañu ñëw dellu ci seen liggéey ñun ñu ngi liggéey normal te ñi siy kaas ni dafa am benn portion bu ma ci gisul ñi ni réseau suñu booy yi ne man de ñi yor dégguma leen te booy yi ciy wax ñu si bari xam nañ ma man maa leen formé fii la ñu jaar ñu si bari amu ci kenn ku lay mën a wax nii ak nii dañ leen a formé

ñeu rassemblé wu si ñun wax ñu seen cahier de doléances wax ñu seen naqar suñu vision moy réew mi jëm kanam suñu vision moy population xalé yi am formation suñu vision moy xalé yi bu ñu formation ñu am application am la main buñu paré ñu nekk ci ay société mën liggéey mu jëm kanam je condamne fermement ñi nga xam ne ngi dugg ci poste Senelec yi di saboter c'est des ennemis de la nation ñooñu c'est des bandits parce que li ñu def defuñu ko Senelec mais dañ réew mi yëpp lañ ko def di vandaliser ay poste Senelec ñu ngi koy condamner fermement ñu ngi koy condamner té di lancer un appel que foo leen toogati courant coupé population yi nañ daw xoli poste yi parce que fi mu nekk nii kenn xamatul li nu mu vraiment ñu ngi koy condamner ñun ak sénégal comme mburu ak soow parce que sénégal, moy demander ñun ñokoy koy liggéeyal te liggéey bi mu ngi dox Senelec mu ngi demandé ñu ngi koy liggéeyal liggéey bi mu ngi dox suñu booy yi ñu nangu ñu ngi liggéey liggéey baa ngi dox directeur Senelec bi ñu ko taxawee liñ ko euh, li nga xam ne moom lañ ko expliqué moom lañ ko ñaax pourtant xale yi di wax nii loolu ci la bokk programme boobu programme boobu ci la bokk ci suñu plateforme programme boobu ci priorité yi la bokk bu Senelec di jëlati ne jukki ci xale yi te ñu ngi négocier sax pour Senelec def you